à CTV la chaîne des asalaamaaleykum mbokku patriotes yi maa ngi leen di nuyu leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm yal yàlla defal patriote yépp jàmm defal ko Sénégal defal ko adduna bi yépp également waa doon bëgg a ñëw rek ci vidéo bu gàtt ci li nga xam ne mooy li ñu war a focus maanaam euh, patriotes yi. vraiment nañu focus ci li nga xam ne mooy l'essentiel ndax Staline dafa am lu mu waxoon lu am solo mu ne quand la ligne est définie c'est l'organisation qui dirige kon nag ñun les patriotes maanaam avec le parti Pastef et le leader président Ousmane Sonko la ligne est définie xam nañ fan la ñu jëm xam nañ lan la ñu bëggal Sénégal kon dama yaakaar ne ci loolu la ñu war a gën a focus te jéem a éviter les débats périphériques ndax bu ngeen seetloo ci jamono yi ñu weesu nii euh, maanaam pouvoir en place bi fexe nañu ba andi débat Adji Sarr ci sur la place publique mu nekk loo xam ne nag wax dëgg yàlla euh, man de gisuma réew mu mën a jëmale kanam gisuma ko ndax genre débat yu mel noonu amul njariñ ci dara kon euh, ñu génn ci loolu noonu jéem a focus ci li nga xam ne moom mooy l'essentiel dañoo génn ci ay yàlla may ñu ci ndam kon nag tey vraiment ñu war a waxtaanee li nga xam ne moom mooy programme président Ousmane Sonko ak programme yeneen maire yi nga xam ne parti Pastef am na leen euh, mooy li nga xam ne mooy jëmal Sénégal kanam mooy li nga xam ne mooy gën a dalal xelu patriote yi te mooy li nga xam ne aussi loolu la ñuy xaar parce que tey ñun bëgg nañu xam wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu élire muy ñoom Khadija Mahécor ñu Maïmouna Dièye ñoom Jamil le président Ousmane Sonko ñeneen ak ñeneen fan la ñu toll ci mandat bi ak lan mooy seen perspective ci li nga xam ne wax dëgg yàlla ñoom loolu la ñu mën a apporter li nga xam ne mooy le Sénégal yaakaar naa lii mooy débat bi nga xam ne moom la ñu war a teg sur la place publique mooy débat bi nga xam ne moom la ñu war a teg à travers les télévisions mais Sénégal nag dafa am ay journalistes yoo xam ne wala yenn animateurs yoo xam ne wax dëgg yàlla ñoom dañoo mën a attardé wu ci loo xam ne amul la amul réew mi benn njariñ bu fekkee ne ñoom wax dëgg yàlla bëgg nañoo def seen liggéey très sérieusement am na ay dossiers yoo xam ne jaar na fi te yaakaar naa dossier yooyu moo gënoon mérité ñu jël leen teg leen sur la place publique moo jox leen benn exemple jël leen tey lu ci mel ni dossier Aliou Sall Aliou Sall ñu cité ko ci détournement ci montage ci malversation loo xam ne dafa porté ci ay koppar gu baree baree baree boo xam ne wax dëgg yàlla day impacter plusieurs générations d'autant plus que dossier boobu dafa am ñoo xam ne dañoo constitué wu pratiquement partie civile mu am ku ci mel ni président Ousmane Sonko am ay preuve ku ci mel ni Clédor seen yor ay preuve ku ci mel ni BBC ñeneen ak ñeneen yor ay preuve yu baree baree baree bare dama jàpp ne bu fekkee ne am na procès boo xam ne journaliste yi waroon nañ ko réclamer moom mooy le procès Aliou Sall pour que ñu dem procès Aliou Sall andi ay avocat am Ousmane Sonko andi ay preuve ñoom Clédor andi seen i preuve képp koo xam ne nee nga am ay preuve ci montage bi nga xam ne moom la Aliou Sall def ci suñu pétrole ak suñu gaz ànd ceeg Frank Timis nga indi say preuve àndi say avocat mu nekk procès bu sérieux sénégalais yi xam fan la dëgg féete bu fekkee ne dëgg dañoo jàpp ne Aliou Sall liñ koy tuumaal loolu am na mu nekk bi war a dal ci kawam dal ci kawam bu fekkee ne dañoo jàpp ne liñ koy tuumaal amul boobaa euh, dañ koo diffamé moom buy porter plainte bu porter plainte par diffamation sénégalais yi xam fan la dëgg féete kon les journalistes je pense que loolu ngeen war a def débat bu ngeen jógee ci Aliou Sall dossier Cheikh Oumar Anne jaar na fi Cheikh Oumar ann nekkoon kuddu maanaam OFNAC épinglé ko ci ay euh, maanaam di gonfler ay factures euh, détournement de deniers publics yaakaar naa loolu aussi nekk na loo xam ne waroon nañ ci def jàngat à travers les plateaux télévision parce que dafa nekk koppar boo xam ne kopparu sénégalais yi la maanaam euh, boo jëlee aussi ci dossier Mamour Diallo ci 94 milliards yi ànd ak Tahirou Sarr def seen i montage fexe ba luubal quatre vingt ci koppar goo xam ne sénégalais yépp ñoo ko bokk maanaam képp koo xam ne yaa ngi Sénégal di fa yeewoo di def say course ñu ngi lay dagg benn TVA maanaam benn lémp woo xam ne dañ koy jël daal di koy yóbbu trésor ñi nga xam ne dañ faa seen i kër yor seeni i location di fay impôt bu ñoo ñu aussi seen koppar la maanaam ñu jël koppar boobu noonu ñoom ñu ut ay Mamour Diallo ut ay pexe ànd ci Tahirou Sarr fexe ba teg loxo koppar boobu jël ci lu tollu 94 milliards boo pare ñu defal ko non-lieu maanaam c'est grave koo xam ne OFNAC daf la épinglé ne lépp lu président Ousmane Sonko ko wax dëgg la mais ñoom ñu dem tëju seen i biir bureau defal lu noonu ya je pense que bu doon dañoo nekk ci réew mu sérieux journalistes yi nañ jël dossier boobu teg ko ci kaw table bi ne c'est pas normal ñuy defal kii nga xam ne mooy Mamour Diallo kii nga xam ne mooy Aliou Sall kii nga xam ne mooy Cheikh Oumar Anne ak ñeneen ak ñeneen ce n'est pas normal ñu leen defal ay non ne dañoo taxaw ne li ñu leen loolu am kon bu dee bu dee procès war na am réellement ñun procès yi la ñuy xaar ñu ay procès Adji Sarr nga xam ni ay complot yu dul jeex la dossier bi de A à lépp dafa vide gars yi jël ko bëgg ko yóbbu bëgg ñoo yóbbu ci ay procès ci ay caaxaan alors que dossiers yi war a dem tribunal dëgg dëgg dëgg sitel sitel naa leen ko mu nekk ay dossiers yoo xam ne wax dëgg yàlla war nañ leen yóbbul tribunal def ay procès kon les patriotes bu ñu daanu ci piège boobu ñun nañu focus ci li nga xam ni moom mooy jëmale parti bi kanam nañu focus ci li nga xam ne mooy jëmale projet bi kanam ñun loolu mooy ñun foofu la ñu président Ousmane ko di xaar mais pas ñuy dugg ci ay débat yoo xam ne dañu koy imposer parce que débat Adji Sarr dañu ko imposer mais am na mënuñ joon ñàkk bañ a wax maanaam patriote yi nga xam ne yëpp wax dëgg yàlla andi nañ ci ay leeral yu ci mel ni ne ñoom dàmbuj ñeneen ak ñeneen wax dëgg yàlla def nañu liggéey bu am solo mais nag il est temps ñu génn ci loolu ñëw nag ci li nga xam ne moom mooy l'essentiel mooy fan la ñu toll ci projet bi am nañu ay maire maire yooyu tey fal nañ leen ñu ngay liggéey maire yooyu lan lañ joto liggéey wala lan lañ jot jot a en place par rapport ak li nga xam ne mooy projet bi man yaakaar naa ne le débat le véritable débat foofu lañ ko war a teg bu weesoo loolu bëggoon naa ñëw ci ki nga xam ne mooy Barthélémy Dias ndax wax dëgg yàlla Barthélémy Dias nekk na leader boo xam ne man dama ko estimer parce que jàpp naa ne am na fit jàpp naa ne gëm na boppam parce que aussi mënoon na rejoindre Macky Sall bu yàgg ci boobu boobu lay gën a nooy ci moom mais tamit taxaw na ci opposition bi résister wax dëgg yàlla euh, ba yàlla may ko tey li mu ko may kon mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla man personnellement man dama koy rafetlu mais bëggoon naa aussi Barthélémy Dias dem de delà des paroles maanaam Barthélémy Dias poser ay actes parce que Barthélémy Dias c'est vrai il a un discours souverainiste un discours panafricain waaye mbir mi waru yam rek ci discours ñun dañoo soxla les patriotes la diaspora la société civile dañoo soxla Barthélémy Dias poser ay actes ñu xam ne kii kat la muy wax wax dëgg yàlla teg na ay actes yoo xam ne méngoo na ak la muy wax ñun tey foofu la ñuy xaar le président Barthélémy Dias boo jëlee le cas du président Ousmane Sonko gis ngeen ba mu jëlee euh, mairie Ziguinchor mbedd yi nga xam ne ay turu tubaab yu ñàkk solo lañ ko tuddee woon jël na mbedd yooyu rendre la dignité à l'homme noir jël mbedd yooyu tudde leen ay tur yoo xam ne wax dëgg yàlla moo gën a méngoo ak ñun suñuy aspiration kon nag Barthélémy Dias ñun dañu lay ñaan la société civile euh, li nga xam ne mooy activistes yi les sénégalais la diaspora mooy mbeddu ndakaaru yi nga xam ne ñu ngi ko tuddee ay Albert Sarraut ay ay Pompidou ay kenn xamul ñun xamuñu ñooñu seen i maam fan lañ cosaanoo xamuñu ñooñu lan la ñu liggéeyal Sénégal ba ñu war leen tuddee ay mbedd ñun wax dëgg yàlla ñu ngi lay xaar foofu noonu pour nga jël ay mesures ñu xam ne Barthélémy Dias mi kat wax dëgg yàlla moom joindre na les paroles à aux actions waaye mbir mi waru yam rek ci ci ay ci ay wax parce que aussi ñun tey euh, xeex bi tool na foo xam ne ñun jëlatuñu suñu xel. maanaam dénk ko doomu aadama lu ñu bëgg bëgg bëgg président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko tey war nañu loo xam ne ci lu mu ñu woo dañ koy wuyu waaye lu ñu ko bëgg bëgg bëgg ñu ngi yor suñu xel yor suñuy bët yor suñuy nopp aussi di xool di xalaat di dégg li nga xam ne moo xew ci réew mi moo tax man la Barthélémy Dias wax dëgg yàlla euh, bu fekkee ne euh, estime bi nga xam ne patriotes yi am nañ ko ci yow boo ko bëggee consolider ñu ngi xaar vraiment nga poser ay actes yu yoo xam ne dafa jëm ci aspiration jeunesse bi foofu lañ lay xaar président Ousmane ko ñaan la ko ñaan na la ko waaye ñun à notre niveau exigence la exigence populaire la pour ñi nga xam ne mooy nasaraan yi ñu tuddee suñu mbedd yi ñu jëlee leen fi. ASID TV la chaîne des patriotes.